الحمد لله غافر الزلات ومقيل السيئات أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو العليم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله في الوجود ليس بحق سواه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سعى بنهجهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته واستشعروا دائما وابدا مراقبه الله تعالى وعزموا الله تعالى في السر والعلن واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله نحن في زمن تكسرت فيه الفتن وتتاعبت عبر الوسائل والشبكات من شاشات وجوالات فيها برامج متجددة من حلالها قد يصل الواخد إلى المنكر وهو في قعر بيته دون رقيب ولا خصيب mbokki jullit ñi ngi sant borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moom mooy jéggaley bàkkaar waaye di suturaal ay jaamam di leen dimbali ak di leen joxaat beneen sens ngir ñu delluwaat ci seen boroom boroom boobu tabaraka wa taala ci xam-xamam moo peeg lépp ndaxte moo xam lu nëbb waaye moo xam li ngante moomu feeñ ñu ngi seede na amul benn buur ku dul moom koo xamee ne yeyoo nañu jaamu ka fii ci kaw suuf kon amul beneen buur bu yeyoo ñu koy wéetal wala ñuy làqatu ci moom ak dimbali ko ku dul borom bi tabaraka wa taala di seede ne moom moo yónni woon ab yonentam muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye moo ko tànn ci mboolem ay mindeefam yan yàlla barkeel wàcceel waamee xéewalam ci moom ak ay saxaabaam ak képp ku xàll seenu njub di neytu seeni jàngale bala kera borom bi doon na suuf mbokki jullit di nañu ragal yàlla tabaraka wa taala dëggi-dëggi ragal saxoo jamono ju nekk di dellu ci moom yàlla tabaraka wa taala ak di fuglu di ko bàyyi xel mbooleem suñuy jëf ak mbooleem suñuy wax moo xam lu nëbbatu la wala lu feeñ la mbokki jullit yi yàlla tabaraka wa taala lépp loo xam ne ñu ngi koy def moo xam lu fees la wala lu làqatu la moom yàlla amul dara lu ko ump borom baa ngi ñuy bàyyiloo li ngante ne mooy waxam bii ci alquran boroom bi di wax ni ragal leen te waaj bés ba nga xamante ne moom ngeen di dellu si seen borom su keroogee de bépp jaam lu mu defoon fii ci kaw suuf yàlla nee na danañ ko ko fay te su boobaa nag yàlla tabaraka wa taala kenn du ko jiiñ ak tooñeel walla ñàkk li ngante mooy matal ax deful lu dul delloo jaami dañu defoon ci kaw suuf lu méngoo ak la ngante moom lañ yeyoo ci ak fay mbokk yi ñu bokk yàlla dañu nekk ci jamono joo xam ne jamono ju bari ay fitan ay jaxasoo ak ay yëngatu waaye ay tasaaroo mbonte ci kaw suuf mbir yooyu nag fes lool ci jumtuwaay yi nga xam ne tey jamono moom moo ko andil moo xam ci ay téléphone la wala yeneen xeeti xarale yoo xam te ni yu bees la mbokki jullit yi loolu tax na mu fes si kanam si suñuy doom ak ñun ñi nga xamante ne ñooy way juri ay programme ak doxalin ak jëf yoo xamante dañ ñu koy gaaral fekk loolu nekk na bunt bu ñuy ubbil buntu mbon ak lingante mooy alkande moo tax doomu aadama bi dana tabbi ci alkande dana tabbi ci ak réer ak mbonte goo xamante ne xamul fan lay mujjee ak moom te génnu lingante ngante mooy buntu këram mu ngi toog ci li ngante mooy ci néegam waaye mbonte googu ak yàqute googu fekk se na ba fa ne na fa la nekk mbokki jullit yi te ci waxtu woowu du ñu bàyyi xel yàlla du ñu ko fuuglu waaye du ñu fàttale ne sax li ñu nekk nii di ko def kat yàlla ëllëg danañu ci regle moo tax borom bi tabaraka wa mu ngi ñuy bàyyiloo xel ne doomu aadama bu nekk lépp loo xam ne mu ngi koy def ci kaw suuf ëllëg danañ ko ko gaaral te su ko réew gi yàlla du ko tooñ ci loolu mbokki jullit li la ñu bëgg a fàttali suñu bopp di leen fàttali bàyyi xel yàlla tabaraka ak di ko fuuglu mbooleem suñuy jëf ak mbooleem li ngante mooy suñuy wax di bàyyi xel ne yàlla tabaraka wa bu ñu dem mukk jamono di ñu nax wala ay bànneex wërñu ba ñu fàtte ne yàlla mu ngi teg suñu kaw waaye it war na ñoo xam ne ñun ñëpp tey dañuy soxlaa am yitte lool ci delluwaat ginnaaw delluwaat suñu boroom waaye jéggalu ko di bàyyi xel mboolem suñuy jëf waaye ragal ko ci lépp loo xamante ne moom la ñuy def ndaxte loolu kat mooy li gën ci ñun balaa bés bi nga xamante ne danañu bëgg delluwaat ginnaaw fekk dellu weesu na delluwaat ginnaaw googu weesu na kon mbokki jullit nañu wut yóbbal bu dey sëkk sa fangante fa lañ jëm mooy suñu boroom ci rendez bi nga xamante ne amul kenn si ñun koo xamante ne dana ko wuutu wala koo dana toog naan tey mënumaa dem damaa am ngant waaye ñëppay dem moo xam dañu diis wala dañu woyof mbokki jullit yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masul dañ ndénkaan yi nga xamante ne yu dëkk la yu sax la di dénk jamono ju nekk aw xeetam ak ku mu mas a ci aw yoon ndénkaane bi nga xamante ne moom mooy ragal yàlla moo tax keroog ba nga xamante ne taxaw na ca jabalu arafa ca li ngante mooy xajjatul wida doon na wax leen yi ne leen taq bi wa wassami wattaa maa ngi leen di dénk yi ngeen sàlloo li ngante ne mooy ragal yàlla lépp xamante ne dégg ngeen ko muy sama santaane wala bàyyi ko seen boroom na ngeen ko jëfe waaye lépp lu leen tere wala seen boroom tere leen ko na ngeen ko bàyyi kon loolu amul lenn lu muy wund lu dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono ju nekk waaye waxtu wu nekk muy doon bàyyi loo xel saxaaba yi ñangante ñoom la yar ñuy fuuglu yàlla waaye ñuy bàyyi xel yàlla ci lépp loo xamante ne ñu ngi koy def moom ba léegi sallallahu alayhi wa bu daan yabal ndaw muy ay saxaabaam ci gëkkay ngante fa leen daan yabal wala mu daan leen yabal ngir ñu dem jaamaarloo ak noonu balaa ñu daan jënd donte dañuy xeexi ji daan leen dénk bàyyi xel yàlla tabaraka wa taala ragal yàlla ci lépp lu ñuy def moo xam dañoo wéet waaye dañoo wéttale ko kon mbokki julliti dunda gi ñu dunda nii tey dañuy soxlaa lool tomb boobu ngante moom mooy bàyyi xel yàlla ngir ñu bañ a tàbbi ci mbooleem xeeti njumte yi nga xamante ne jamono tey ak adduna mu ñu koy gaaral waaye ñu puuse yóbbu ñu suñuy fag def li ngante mooy aw yiw waaye jéem a xàll lépp loo xamante ne mooy yoon wu baax ngir bu ñu dajee borom bi tabaraka la taala lépp lu ñu fa fekk day nekk li ngante mooy lu rafet bañ a bokk ci ñi yàlla tabaraka wa taala doon wax ne wala yaslimu rabbuka ahada ndaxte bu ñëwee seen kanamu boroom yàlla dana leen gaaral li ñu defoon ci kaw suuf te ñu defoon nekk loolu lu rafet yàlla ne leen man de tooñu ma kenn waaye dama delloo jaami rek lu nekk ak la nga te ne moom nga moom ngeen yeyoo kon mbokki jullit yi ci loolu la war a bàyyi xel ni doomu aadama yëpp ëllëg ñu ñëwee fa seen boroom yàlla dana leen gaaral seen résultat yu jëf moo xam lu nëbbatu la woon wala lu laaxatu la woon lu ñu yaakaaru woon ne sax yàlla mu ngi koy jël danañ leen ko génnal moo tax ci loolu yàlla tabaraka wa taala mu ngi bàyyiloo xel doomu aadama yi ne yaa ayyuha allazina amanu taqullah wal tanzur nafsun maa qaddamat le gad yéen ñi gëm yàlla ragal leen yalla seen boroom dee leen bàyyi xel yàlla waaye dee leen ko fuglu dee leen ko wéttalikoo te bakken bu nekk nay bàyyi xel ëllëg lan lay gaaral ci kanamu boroomam boroom bi waxaat ci téere bi ne doomu aadama dina ñëw yowmal xiyaam xol li mu jëfoon ci kaw suuf mu nekk lu ñaaw nekk loo xamante ne xamul nan lay def ngir teqala koo ak loolu borom bi nee na doomu aadama commencé di bébét naan yellante woon de mbir mii wala jëf yu yii de nekk sama diggante ak moom li mooy distance bu sori kon mbokki jullit yi loolu lan moo ñu siy dimbali lan moo ñu siy tax a mucc mooy fu ñu mën a nekk ak lu ñuy mën a def ñuy bàyyi xel yàlla tabaraka moo tax bés bu ñu gaaree li ngante ne mooy jëf gaar jaami seen kanamu boroom boroom bi danañu génnal ay jëf yoo xamante ne yaakaaruñu ko woon wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun yàlla nee na ñit ñi danañ ñëw seen kanamu boroom ñu génnal leen ci ay jëf yoo xamante ne yaakaaruñu noon ne yàlla mu ngi koy jël foogoon nañ ne mbiri daal ay kaf rek ay fola rek wala yàlla daal dana jéggale yàlla du toppe jaami yëpp fekk yàlla tabaaraka wa taala daawul bàyyi dara moo xam lu ndaw la wala lu mag la moo tax yooyu danañ leen génnal loo xamante ne yaakaar ñu ne woon ne ñu ngi ko doon jël fekk malaaka yi borom bi ñoom du ñu bàyyi dara beneen bi moo ki jullit yi yenente bi sallallahu alayhi sallam ngir wane rek ñàkk fuglu yàlla ak ñàkk koo bàyyi xel di ka teewlu foo mën a nekk lii muy jurale ak rëcc ak pertaange jaami ëllëg bés penc ci xadis bi nga xamante ne sawbaan moo ko nettali ñu yàgg ko dégg mooy xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaa saxaaba yi mu ne leen de xam naa aw nit ci yéen ñoo xamante ne ëllëg yowmal xiyaam dañuy teewal seen kanamu borom lu toll ni ci ay yiw lu toll ni li nga ne mooy montagne u Tihaama montagne bu rëy boo xamante ne buñ ko doon natt kenn xamul na la toll yéen sallallahu alayhi wasallam nee na ñi dinañ ñëw yowmal xiyaam waaye andi fa lu toll noonu ci ay tiyaaba waaye buñ ko xoolee ba mu weex yàlla def ko li nga mooy doom bu ñu jéeri dara doot fa nekkati yenn saasaam bi mu waxee loolu sawbaan ne ko yonent bi melal ñu ñooñu ñooñu ñooy ñan yenn saasaam ne ko ñooñu de ay nit la ñoom te ne ci yéen la bokk di lakk-lakk yi ngeen di lakk waaye yor dari ngante ne moom ngeen yor waaye ñoom de seen jafe-jafe leen dong la woon man yàlla tabaraka wa maa nekkoon bët bii gën a ñàkk solo ci ñoom man lañ defoon man yàlla ma nekk kii ngante ne jariñ ma dara si ñoom bu leen nit gisee amul problème dañuy làqatu waaye wóor na leen ne man yàlla maa ngi leen di gis ñoom faalewuñu ma bu ko defee nag comme maa gënoon a ñàkk solo ci ñoom ñu jëloon ay doomu aadama di leen bàyyi xel di leen fuglu moo tax ñooñu tey biñ ñëwee fii loolu ñu defoon lépp borom bi nee na ma def ko ab dóom bu ko defee ñooñ fa la ñuy mujje ñu mujje fi ngante ne mooy seen bugalug boroom moo tax mbokki jullit yi loolu lu ba lu jar a bàyyi xel la loolu lu jar mooy doomu aadama bi daawul xel daawul bàyyi xel yàlla tabaaraka wa taala daaw li ngante ne mooy soor yàlla ci ay jëfam te loolu nag mooy li dal nit ñi dañuy làqatu nit ñi waaye duñu laxatu borom bi tabaaraka wa taala moo tax waykat ba doon na wax ni isa ma xalawta dahran fala taqul xalawtu walakin qul alayya raqibu mu ne yow doomu aadama bi bés boo wéetee yow dong nga nekk bul wax mukk ne damaa wedd waaye na wax ne bëtu yàlla tabaraka wa mu ngi ne jomm ci man yàlla mi ngante moo ma bind mu ngi may gis waaye yàlla mi ngante moo ma bind mu ngi xam bu baax ci waxtu wii fa ma nekk ak lan laa nekk di jëf kon mbokki jullit yi bu ñu settantelee loolu moo ñuy wane ne doomu aadama bi lenn dong moom moo wan a nekk taxawaayam ak boroomam buy dox ak buy tëdd ak bu wéetee bu wéttalu ko bu nekkee ci mbooloo wala mu nekk moom kese muy bàyyi xel yàlla waaye tamit mu xam ne doomu aadama yi du ñoom ñoom ñoo koy jugé doomu aadama yi seeni jugement ak seeni wax ci yàlla tabaraka wa taala kontewul ndaxte yàlla moom moo la gën a xam sa bopp ñi ñi li at mooy li ngante moo fes nañ la jël def la ab yenent nañ la jël def la kii gën a baax waaye su fekkent ne yow sa biir ak boo wéetee sa borom la ngay def rafetul su boobaa ñi ñi lañ lay wax ñu ngi lay nax waaye yow sa bopp yaa ngi nax sa bopp kon boobaa nag la ngay def sa diggante ak sa boroom mooy lii ngante moo jar a sóor loolu mooy li jar a compte waaye doomu aadama yi buñ lay waxal ak mbaax fekk baaxoo amul njariñ waaye ñoom nu ñu dëkk di la xarab di la waxal lu ñaaw fekk yow sa diggante sa boroom nekk lu rafet su boobaa ñoom seen jugement ak seen li ngante mooy appréciation amul benn solo waaye yàlla tabaaraka wa moom bëtam mooy li am solo yàlla tabaaraka wa taala atte mooy li am solo donte nag def lu baax ci kanam nit ñi wan ak mbaax ci ñoom loolu mooy li ngante moom la ñu taamu beneen bi mbokki jullit yi bu ñu demee ci xadis bi nga xamante ni incha allah imaam moom la ñuy fàttali bii ñëw ci xutba mooy juróom-ñaar ñoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñoom ëllëg bu ñëpp tàngee bu ñëpp soxlaa seen ndimbalu boroom ñoom ñee yàlla di keral waaye li ñuy soxlaa ci juróom-ñaar yooyu moo xoolee ñoom ñëpp li nga xamante mooy alwajhul mushtarak mooy dénominateur commun bi leen boole bi tax ba yàlla jox leen fay yu màgg yooyu mooy ñëpp tàng ñëpp di feey si seeni ñax waaye ñoom ñu nekk ñoom tey nekk cim mpéex ak ker ñoom li leen boole ñoom ñëpp mooy muraqabatullahi taala fi sirri wal alan mooy di fuuglu yàlla fu foom te dafa nëbbatu ak loom te ne dafa feeñ aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi hamda shakirin wa usni alayhi alxayru kulluh lahu alhamdu wal amru fi alaxirati wal ula wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh almurtada sallallahu alayhi wa sallam wa man saara bi nahjihi wastanna bi sunnatihi ila qiyami saa mbokki jullit ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala cant gu tolloo ak màggaayam di laxatu ci moom mboolem suñuy ñaawteef ak bon bonu jëf waaye di julli di sëlmal ci ab sangam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngante moom la yàlla tànn mboolem ci ay jaamam ngir ñu royee ci lépp lomte moom la ñu digal mbokki jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp dénk leen li ngante mooy ragal yàlla ragal yàlla gi ngante moom moo nekkoon ndénkaane ñiy jëkk waaye moo nekk ndénkaane ñi mujje ragal yàlla googu mbokki jullit mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dénk ay saxaabaam waaye saxaabay seen biir moom lañ daan dénkante seen biir moo tax keroog ba nga xamante ne mu ngi yebal Seyduna Muaz ci li nga xamante ne mooy Yaman moom yonent bi sallallahu alayhi ba mu koy laaj mu Muaz boo demee lan ngay at ña nga jiite mu nekk kat danaa leen atte ci téere yàlla bi mu nekk yow Muaz su fekkente ne la nga leen di atte gisoo ko ci téere borom bi nooy def mu ne ma dem seet ko ci jàngaleb yonentaam yonente bi ne ko waa boo ko fekkulee ci jàngaleb yonentaam nooy def mu nekk ma demee li nga mooy sama xel te bañ a jëng yéen saa salaam ne ko yow Muaz foofu nga teg sa tànk mooy yoon bul ko wàcc benn yoon ci wax jooju yëpp yéen saa salaam mu ngi tënk ci nga mooy saxaaba boobu ci topp yàlla ci li nga xamante moom la digle waaye mooy ci jàngal li nga xamante ab yeneen taam waaye atte ñi ci loo xamante moom la yàlla bëgg waaye bañ a jàng benn yoon si seeni at loolu nag moom mooy ragal yàlla loolu lay ngante mooy seena omar ibnul xataab kero ba nga xamante toog na ak seena ubay ki ngante mooy ibni kaab di saxaabu bu mag mu ne ko yow ubay lan mooy ragal yàlla seena omar ubay tontu ne ko yow yaa amiral muminin ndax mas nga dox ci àll boobu dafa am ay xaaxam mu ne ko waaw ubay ne ko nan nga def mu nekk dama wogas sama yére du xool fan laay teg sama tànk mu ne ko yow ki ngante mooy Muaz yow amira muminin loolu moom mooy li ngante ne mooy ragal yàlla mbokki jullit li ragal yàlla googu nag nekk lu dul doomu aadama bi fexe ba teg benn ñag boom te moom moo koy ñag ci li ngante mooy mbugalu boroomam maanaam mu fexe ba digganteem ak li ngante mooy li koy tàbbi ci mbugalu borom bi mu fexe ba wutal ko baaraas te loolu nag mooy def lépp loonte moom la yàlla sant waaye moytu lépp lom te ne moom la yàlla tabaraka wa taala tere beneen bi mbokki jullit yi mooy ne fuuglu yàlla tabaraka wa bokk na ci li mooy ay mayam ak fay yi nga xamante ne moom la yàlla di fay ëllëg bu ñu teewee ci kanamu borom bi yàlla tabaraka wa taala danañu settee ci ay jaamam génn ñu ci li mooy mboolem mbindeefi jox ñu fay yoo xamante ne kenn si li nga mooy ay jaamam amu ko ci mooy xadis boobu Yeesu salaam nee na ñi nga xamante ne ñoom lépp lu ñu daan def ñu ngi daan bàyyi xel li ngante yàlla tabaraka wa taala wala bu ñu wéetee ñu ngi daan wéttale ko seen boroom wala bu fekkente ne ñaawteef mu ngi seen kanam waaye ñu xelaat seen boroom rek ñu delluwaat ginnaaw ñooñu ëllëg danaa leen fay keroog ba nga xam te ñëpp danañu soxlaa fay man yàlla tabaraka taala ma teral leen si kanamu jaam yi bii mujj mbokki jullit yi mooy nañu bàyyi xel ne doomu aadama lépp loo xamante ne moo taaru fii ci kanamam ba seytaane rafetal ko ko ba mu xuus si ba dem bu deewee ci ngante mooy kanamu boroomam loolu mooy nekk li mu njëkk rëcc lépp lu la seytaane taara looloon xamal ne bés boo faatoo loolu mooy li ngay njëkk rëcc ndaxte xalaat yu ñaaw yooyu ak jëf yu ñaaw yooyu moom mooy ñëwaat si biir bàmmeel kon nag balaa ñu toll foofu nañu rafetalaat li nga xamante ne mooy suñu jëf seytaane mi nga xamante ne moo ñuy gaaral jëf yi di ay jëf yu ñaaw nañu ko tontu la mag ñu baax ñi daan tontu saxaabatul kiram lañ ko daan wax yow seytaane demal nga nax keneen ndaxte ñun mënoo ñoo nax kenn si ñoom daanaka wax na yow seytaane ak yow mi ngante xamante ni yaay adduna man de fase naa la fasam ñett ba nopp na la woon na sama diggante ak yow ab sëy mënatu faa nekk kon mbokki jullit yi loolu mooy taxawaayu jullit ci kanam li nga ne moom mooy seytaane waaye loolu mooy taxawaayu jullit bi ci kanamu ñaawteef ak bakkel la nga moom la koy jeng jëmale ko bu ko defee nag bés bu ñu moytoo yooyu not li ngante mooy suñu bakken jëf li ngante moom la yàlla bëgg moytu li ngante mooy li ñu tere bu ëllëgee ñu bokk ca ñi ngante ñoom ñooy donn seen aljana boroom mbokki jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk li ngante mooy sàlloo ak du julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bés yi ñu toll nii ak li ngante mooy guddi àjjuma ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo digle kat ñii bari li ñuy julli ci moom ci bés bi ngante mooy bésu aljuma waaye yàlla tabaaraka wa taala moo ci dig ay fay yu bari kon nañ koy bàyyi xel rabbana taxabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawaabu rahim allahuma ijal awala yawmina haza salahan wa awsatahu falahan wa axirahu najahan برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله